yeah hello hello sama gars yi salut la Mifa ñu ne ko digoon ñëwaat nañ seen nouvelle émission High Clash ci biir Africa Channel tey nag ñu ngi dalal suñu artiste bi naan Khamass fas yéene waxtaan ak moom ci ay projet am ak lan lay waaj pour fansam avant tout dañ ko dalal mu nuyoo waxtaan ak internet bi Khamass dalal jàmm. yow hello hello guys hello hello waa Africa Channel maa ngi leen shout ñëpp di leen nuyu car ba car di nuyu tamit internet yu ñu seetaan yëpp di leen wax welcome my side global si studio bi kaay yee sama gars yi ñoo ko digoon ñëwaat nañ ah avant tout dañuy laajte kan mooy dëgg-dëgg Hamas. yee dëggan dëggantaan lu mu ko farlu waxee ak tout le temps Hamas waaw benn booy la benn booy boo xam ne mi dugg si musique à deux mille dix deux mille seize xam nga di commencé di percer ndànk-ndànk xam di teewal tamit sama saay jaamu goon for life wacce ma kooku mooy Hamas. yee kon gars yi ñoo ko déggoon ah jaamu goon for life euh, mais pourquoi nga choisir lanoo Hamas lanoo Hamas fan la jógee quoi. yooyu mooy xamaas xamaas sama tur laa dagg rek ax ma ma inversé ko quoi. aussi tamit comme beneen facette bi nga ko mën a déggee képp ku def terminal di nga jàng histoire boobu euh, ay ay ay boroom xam-xam la woon tamit. ñu ëppoon ñu ëppoon plaignant ci ci xam-xam yi ñu doon concurrence ba xamaas moo fi mujjoon génn quoi loolu mooy neemu xamaas. <laughs> kon ça veut dire que ne bi daal yaa xam-xam daal <laughs> gemb gemb yaa ëpp xam-xam loolu nga bëgg wax gars yi daal. waaw du question xam nga xam-xam doyut du question maa ëpp xam-xam quoi mais tamit milieu bi nga nekk. li nga mhm. war a nekk tamit bala nga see dugg foncer carrément il faut nga am xam-xam bi quoi soo gëstu. loo mooy indi gain loo mooy indi loo mooy indi turu xamaas bi carrément quoi. mais la ma la ma la motivé ci musique quoi ba nga ba nga choisir def hip hop daal. lu ma motivé ci musique c'est simple quoi amour la quoi avant tout amour la. ndax euh, nit ba nga dugg si dara il faut nga bëgg ko quoi mooy loolu quoi dama ko doon cons a ba âge di ko déglu ay sama grand tamit nekk ay musiciens wala ñoo xamante tamit dañuy fréquenter si milieu si milieu musical amour boobu may may fréquenté ñu amour boobu dem ba dugg ma quoi loolu moo indi sax ma nekk tey lu ma doon quoi. mais xam ban artiste nga ëpp looy looy déglu quoi yow kan mooy sa artiste préféré ici ici au Sénégal. man nag man nag bizarrement man bizarrement waxuma duma cons euh, artiste yi nekk Sénégal quoi mais rarement lay cons man sama sama. ah da ngay siisu quoi da ngay siisu. non pas siisu ça fi amul fi lu ñu fi siisu quoi fii gisuma dara lu ñu fi siisu ndax defuñu fi loo xam ne mën na ma siisu loo quoi. xam nga man sama bët xooluma ko xooluma ko fii samay nopp dégluwuma ko fii quoi. léegi man au rendez-vous laay laay cons laay dund quoi mais comme ni ma ko far di waxee rek mën nga nekk si dëkk yëpp sa mind sori sama mind feneen lañ ko teg quoi mais pas bu Sénégal. mais est-ce que Khamass na label. am nga studio moo xam ni fa nga signé sa contrat di fa job wala. instant yow fi fekk fii makkaam nga fekk quoi global global nga fekk fii mooy sama sama house fii mooy sama lépp lépp lu may def fii koy defee mooy loolu. mais est-ce que global bi nga nekk par nañ pour produire la euh, mixtape ou album yan projet la ñuy waajal pour Hamas quoi. global global du du studio. Hmm. famille famille la quoi sama house la. waaw de passage maa ngi leen nuyu ñoo ñëpp maa ngi nuyu Diaw Diop di nuyu tamit Matar di nuyu Momo ay Bouba ak gars yi fi nekk ñëpp ñëpp maa ngi leen daab xam respect si ñoom yee global famille la te man fii laay joobee H24 fii laay joobee quoi sama lépp ñoo ñoo koy ñoo koy teg te nag Sénégal ma wax leen benn affaire lu garaaw mi ngi ñëw nag lu garaaw mi ngi ñëw si global ay xamaas loolu la woon quoi aja gars yi ñoo ko déggandoo ah xamaas lañ daloon tey di waxtaan moom ci projet ak la lay waajal pour ay fansam comme naa nga léegi xamaas gars yi internet bi dañu bëgg a xam maanaam xamaas maanaam xamaas yow ban xeetu musique maanaam ban xeetu musique kase maanaam est-ce que hip hop kase nekk di def da ngay def afro dance da ngay def yeneen xeetu musique daal. waaw loolu tamit loolu tamit question boobu maa ngi koy dégg bëri quoi xamaas moom musique lay def musique. man tënkuma sama bopp si dara tënkuma sama bopp si rap tënkuma sama bopp si euh, beneen musique quoi man daje musique laay def lépp lu musique laay am boom baag am am kees yi génn na nga tëgg rek man daal lu ma sentir lu ma feel lu ma war a def ay def quoi mais basé wu ma carrément si hip waaw damay saaw damay damay dance damay danse damay aussi tamit damay reggae damay mbalax damay def lépp lépp lu musique laaj man dama koy def dans la musique ah. dans la musique comme lu ko gars di waxee ay fii laa tënku nankam di ragal lu ñu war a ragal lu ñu war a wax fii ragal ragal xaña day day day wàññi xam ma day wàññi wërsëg xam ma day nu ko olof njaay di waxee man daal bàyyi lépp laa def musique laay def quoi. waaw daa se musique musique laay def ma kenn di ma xaasi fenn nag musique laay def quoi. mais mais mais ma su ma déggee ci say wax ça veut dire que yow da nga jàpp si bopp sa artiste bu mais pourquoi nga canal nga canaliser sa bopp ci artiste bu ndaw yi quoi. non Fall daa mel déggoo ma de dam na booy bu ndaw mais pas artiste bu ndaw <laughs> fii gis nga lu ma far di wax tout le temps rek. Hmm. fii man dara daw samay bët dara yéemu ma quoi xam nga ba gis ñoo xam ne ñi ngeen jàppee ñoom ñoo nekk au dans dans haut. waaw dans le sommet quoi ma ñoom fëkkuñ samay bët. n'est-ce sama benn sama benn frère da koy wax muy Laurent Laurent da koy wax nee mbër mu ndaw ak mbër mu mag amut ñëpp doo dem CNG am sa carte quoi. carte licence noonu la demee fii nag gars yi dara ndaw suñuy bët. moom wax naa sama sama wax sànq rek man visé wu ma sax Sénégal pour mu clair au rendez-vous rendez-vous laay visé quoi samay bët tegu ko fii quoi kon daa fëkku samay bët fii mooy loolu quoi duma ma bu ndaw de xamal loolu. mais pourquoi quoi pourquoi Hamas génnul parce que bañ ba nga gëj a génne son ak léegi j'espère que ça fait neuf mois. Mm-hmm. gis ñu la nga génne du du du sound. Mm-hmm. du kilim du dara. Mm-hmm. xam nga j'espère que sa dernier clip moo nekk daw ne ci écran bi. xam nga ba te gis ñu la nga yëngal te booy ñu ngi ci hip gaaseen di yëngal. te gis ñu Hamas quoi te ay jamono ne doon gis nga yëngal di dal ci kaw gars yi mm. mais ñu jegee gis Hamas def tekk Hamas dafa am lu muy waajal wala lan la danga nga bëgg a tëll clash gars yi ne fi nekk di yëngal hip hop bi quoi wala nu mu fa demee nii parce que booy ñu ngi yëngal nga toog sa ruq quoi <laughs> yee yoo ko sa biir wax tax da nga tekk n'est-ce pas tekk tekk wala yoon rambax da ngay dégg paccax <laughs> nest <laughs> non suñ tekkaaraan na dara wóor ko ndax parce que dañuy job projet. Hmm. dañuy job quoi. te aussi tamit euh, musique boo fu ne fu nekkee à benn moment. ngay def loo xam ne gars yi ñu lay siifu ndànk-ndànk. Hmm. di nga dem toogaat wala job loo xam ne lépp li nga génne woon day gën a xaat. ñu foofu lañ toll quoi. wax nga wax sànq nga ne gars yi ñu ngi fi nekk di mbéj mbéj mbéj mbéj loolu nee naa loolu tuuru samay bët daw sama yaram sax pour mu créer man daal maa ngi fi maa ngi job te lu may joob bu paree. waxuma la sax Galsen mais romb Galsen dinañ yuux mooy loolu quoi. mais loolu foo ko teg quoi la ma tax nga ne di nga job lu romb Galsen te gisaguñ nga def ko ko mais job la job la job la mais bu fekkee job da nga war def parce que parce que gis nañ nouvelle génération bi. comme ma jël taal bi. Mm. ay Mr Xëch. xam nga euh, Mr Cash. <laughs> comme naan nga. yi gars yi gars yi ñu ñu ngi génn job te pourtant yéen a a fëlandoo. waaw mais pourquoi pas yow gars yi noonu fi ñu teg seen tànk te wax fa tànk jamono ji. yow yaa tudd tur sax yaa tudd tur yaa tudd xam waaw ñooñ kaay sa bopp la nekk de mais nekk suñu bopp ñun quoi muy ay taalibeeg ay misa kees ay sóorit l'officiel ñoo ñëpp ay markatu taat lañ markatu bun lañ dañu suqu garam <laughs> ñun booy dara daw suñu yaram booy ñoo xam na lu daw suñu yaram lu daw suñu bët mo Cheikh Ahmadou Bamba ma bu Cheikh Ahmadou Bamba dara daw suñu bët n'est-ce ñoo nag gis naa ñu nekk di mbaj mbaj di martaat surtout euh, booy boobu booy bu nekk KBC fàtte naa turam sax mooy fëgees ndigas boobu tam nekk KBC xam nga Dias Kaana xam nga. Dias Kaana xam nga Dias Kaña. mu ànd tontu booy Dias Kaana mi ngi joblu nice. mi ngi joblu ngi joblu nice si yow man man dama ne bindam dafa bindam gondiwu ma. Euh, dirul lu mu fi tegee comme bébé buy rab ma gondiwu ma quoi. boo yooyu fi leen nekk di onk rek moo jël hypophilie euh, moo faj sa seex. non daa mën a faj loo loolu mënul faj belam xam a am na Sénégal nañ ko waxtaanee. Sénégal lañ ko waxta dee si domaine bépp nag boo fu nekku maroo tat wala di suqu nit doo génn nañ ko dem na deux defaral ko di question man damay défendre belam ou pas si cadre musique laa lay wax. lu nekk sa frère moo tax nga koy défendre. non man parce que jazz kaan gars yi dañ nangul. dama ne déggoo de man belam buñ bokkoon day ak baay sax man bu nekkoo si yoon dama ko nekkoon si yoon. gis nga jazz kaana bu fekkoon dafa defaral belem damay taxoon dafa defaroo belem quoi ma yow ay détails sama yoon sax dafay nekkut ndax en ñoo ñaar la quoi mais lu ma la bëgg a wax la laa lay wax rek gis nga grand bu fu nekk di jéem a wax booy tontul diwal classal nii classal nangam nga classe benn booy ay focus njëkk ngeen. ay focus nigga ngeen da ngeen ko wax da ngeen markatu tat. gëm leen ah ngay ay ngaaga beneen ay ay focus nigga lañ daal. man man sax ngaaka ak ay dibak. ay matadi ay matadi man. waa KBC ngeen dal seen ma leen dawuñu sama yaram doo dégg de ma xam ne doo sama yaram Baye Fall. Cheikh Ahmadou Bamba. doo daw sama yaram mais keneen daw sama yaram dafa ñu lu lu ma yéem fii gis nañ fi ku ne. xam na doon tool jamono boo xam ne jamono la quoi. mais boo fi nekkee tamit à chaque fois lu may wax. ak chaque fois ma looy wax ma suis direct noonu laa mel fii ma tàllalu ma loxo kenn maruma taatu kenn nañ bàyyi taatu grand yu ñu ma te gëm seen bopp te job job leen booy loolu ngeen job lu bëree bëree job leen gaañ ngeen nekk fii di jéem a défendre ay nit di jéem a classe ay xeekil yow focus nigga nga gaañ that's what shit nigga bàyyi yow niggas nga focus nigga mbarkatu bun nga yow jazz nekk bu jéem a classe xeekil xeekil lu ma def doo gëm sa bopp job ah music man joobal gaañ te gëm sa bopp te bàyyi grand yi ngay mas seeni tat fii gëm bopp moo la fay jàllale amul branloo amul dara seul le travail paie loolu c'est yee xamaas mu ngi dal ci kaw Jazz Kaana Jazz Kaana mu nekk ci labelu euh, <clears throat> nu mu tudd sax KBC j'espère que Hamas <laughs> yaa ngi dal ci kaw Diaz kanam baax. waaw am na booy yoo xam ne tàngaloo xolu nit ñi quoi ay focus lañu ay focus. ay focus lañu ak beneen booy boo xam ne ñàkk Thiès du onk rek gaañ xam nga moom lu muy wax réew. <laughs> yaa tudd turam de man tudd ma kenn de yaa tudd turam. yaa man laaj ma wax de waaye ah. <laughs> moo wax loo gaañ. taal bi taal bi day tax taal bi day tax. rab wolof rab wolof bu dee woon Carrefour rab wolof bu nekk woon Carrefour taal bi du jéggi Thiès. non bañal loolu. waaw rab wolof bu nekk woon Carrefour. matt yaa ngi Thiès. loolu ba ngeen dégg ko rab wolof Carrefour de Carrefour la. day génn gars yi fure lay fëlee Carrefour la ko waa bu nekkoon Carrefour taa bi du génn cees ba fa mu xam loolu. gars yi ñoo ko déggandoo ah ngeen xamaas xam mu nekk nante réel ni nga def ay bagages yu nice xam nga naka gars yi dem découvrir jeune la teg si mu ngi dëkk Jamus Gero xam nga. naka naka gars yi dem support waa jàmm gan surtout xam nga dem leen may ko loxo gàncax bu am talent mu ngi ci wëyam. xam nga te mu ngi wax ay projet yu nice ay ñoom Jazz Kana gars yi naa ay sound yu mu play fii sànq Jazz Kana mu ngi dal seen kaw de ay ñoom ay ñoom taal bi. xam nga taal bi saa mu ngi ñëw dal seen kaw de mu ngi génn bagage yu nice yu dope xam nga mooy loolu ñëw dal seen kaw quoi xam naa dinaa ñëw jël si leen gars yi noonu ah. ay taal bi ay ñoom euh, gars yu bëri daal incha allah ma wér. mais man lu ma jaaxal lu ma jaaxal loo nga ciblé deux personnes quoi. mais deux personnes dañu fay def le flamme et faux. lu nga ciblé deux man bu doon Carrefour xaw ma taal bi du jéggi raay. j'espère que man daal xam lu ma wax. nga classe taal bi. man daal xam man daal euh, man man amoon lu may nëbb. xam nga dégg naa si benn nga sànni ko pic ci côté Hegel. moo tax ma laaj la. genre gis nga loolu bëgguma sax ñu fi ñu fi xuus quoi. waaw ñu teg foofu suñu baaraam bëgguma ko ndax parce que amuñu bu ñu perte. mais parce que the life is taken away the life is time is money. instant yooyu lu gars yi def nii ay focus si kenn man nekkoo ma si loolu man maa ngi sama wóot maa ngi def lu may job ak lu mm-hmm. ma jëmale kanam quoi mais bëgguma ñu focus si benn nit quoi wala ñaar nit man daam man si si digg bi laay jaar man string si <laughs> digg bi laay jaar. amul lu may nëbb amul lu may nëbb man lu ma war a wax dama koy wax bu jeexee jeex na. quoi bu jeexee jeex na mu xaay waaw man man man. waaw ay tarkindaa lañ ñu jaama gën a dëkk jaama gën dëkk de feneen fu ñu jaama gën. waaw Daz. aja gars yi gis ngeen ko ah xamaa la yaram bi dafa xaw a tàng nag parce que hmm. xam nga deretu artiste bi deretu rappeur mooy daw ci sang bi mooy loolu. mais xamaa lan lay waajal quoi pour ay fansam yan projet nga nekk di waajal mixtape album single waaw looy waajal daal. yee comme li nga dégg rek comme li nga dégg rek la ñuy waajal. n'est-ce hmm. lu ñuy waajal c'est simple. c'est simple du lourd quoi du lourd. Hmm. mi si cuisine bi. waaw n'est-ce pas bu ñoree nag ba def plat bi di nga xam ba xam neex na wala neexul. avant goût avant goût dina am. avant goût dina am avant goût mixtape album la ngay waaj waajal. en tout cas daal mën naa wax leen daal. oui projet bi mën naa jox lu mu tudd. waaw mais du ma la wax lu mu doon. n'est-ce pas <laughs> mais sa dégg-dégg nag fu mu toll. Mhm. foofu la toll. foofu la toll waaw. maanaam projet bi fu bët yam la tudd. sa bët fu mu yem nag jàppal na foofu la yem seew. yeah gars yi ñoo ko dégganoo fii ba di yam lay waajal génne dal ci kaw gars yëpp man nag am na quelques affaire yu mu jot a déglu xam naa ne gars yi moom nañu waajal saa mu ngi ñëw ak bagage yu nice xam nga ak bagage yu dóob tey fekk nañ ko ci studio waxtaan ak moom xam nga yaatal nañ ci lu bari bari bari bari bari xam nga mu nekk réel ndiga mu nekk gaynde boo xam ne mën na lu muy def te ku am talent la macha allah te ku ngi ci studio jaw jóob waaw ak gars yu gars yu chic nañ fi jaw léegi mm-hmm. xam mu nekk réel ndiga nekk gaynde bi cool ñu koy sawdaat bu baax a baax. te kontaan nañ tey. foo foo foo réel foo réel may bro xam nga. tàggatool gars yi. loolu ñu bëggee. avant avant may tàggatoo. daa am benn message bu mu bëgg a lancer quoi. oui. ci son excellence. monsieur le président. Mm-hmm. jàppale say ndaw quoi. jàppale sa ndaw réew sa ndaw réew sa ndaw réew. importance. bëgg nañ liggéey mais gis ñu lu ñuy liggéey. gis nga am na ñoo xam ne dañ jàng ba pare am seen diplôme toog si bopp koñ bi. Hmm. ñii dañuy toog inondation am si côté banlieue bi affaire bi tar si ñoom. Hmm. ndax des fois dañoo dégg après la pluie c'est le beau mais it si Diamos après la pluie c'est le paccax paccax. lu leer ndax loolu war ngeen fee jóg yéen ñu nekk si kaw njiit yi ba ngeen gestu tamit jeunesse bu carrément aussi tamit. monsieur le président wax nga mën a waxal tamit say ñoñ affaire ñuy yokk nañ ko wàññi bizarrement maa ngi dégg loo xam ne neexu mhm. ci doomu senegal si doomu sénégalais. Mhm. dem ba saako soble. Mhm. di jar cinquante mille. kilo di jar deux mille. loolu ñaaw na monsieur le président ñun say nawuteem ñooy sàkku ñaan nga wàññi affaire yi te ñun nag baax la benn affaire nag monsieur le président. ñu sénégalais lañ on est gerte mais lu ñu yokk tamit si soble beeg si leneen tamit si màggal Tuubaa bii di ñëw ñu murit lañ te saako soble bu doon jar cent mille ñu dañ koy génnee te Ahmadou moo ko jar mais tamit du ñëpp ñoo ko am yaa fi yàlla fi teg nag. yàlla fi yàlla teg mm-hmm. ñii bëgg ñii bañ mais tewu yàlla fi yàlla teg mm-hmm. mais war ngaa gëstu tamit jeunesse bi mm-hmm. gëstu tamit population bi loolu moom message bu mu bëggoon jàlle bëgg naa nga bàyyi si xel tamit merci beaucoup am na solo trop am na solo trop mu nekk message bu am solo. message mhm. bu am importance ci ci réew mi ñun ndaw réew mi parce que li mu wax dëgg la bu tawee pare ñun waa Jamus Géro dañ koy sant bu baax baax mais quand message mhm. bi am na solo. xam nga émission bi naat na yaatu na. Mhm. dañoo bëgg nga may internet benn freestyle bu gàtt xam nga bëgg ko say fans ñu tàggatoo ba beneen yoon incha allah. waaw Africa Semaine maa ngi sawdab di leen bëgg ñu lay bëgg bu baax. di leen maslawu coono tamit xam nga jóge ngeen fa ñëw fii. buñ seex a waxtaan. dafa leer maa ngi bëggee yéen ñëpp nag cat ba cat. aussi tamit di bëggee mafia jaam a gën bépp waaw di bëggee Youssou di bëggee caatu Fora di bëggee waa mafia mbatal ga di bëggee waa mafia tamit alliance boo ko bu taw xos dégg maa ngi leen bëggee di bëggee waa Pikine makam bi. Kasor Kas Fabelas di bëgg Fabelas bi yëpp gaañ ay eh, xëy na nga maa leen bëgg di bëgg tamit lakkay di bëgg tamit ñas sa yaram. maa ngi saawu daal ñëpp ñëpp ak ñëpp ñu ma bàyyi xel. di bëgg tamit sama waa makkaan di bëgg sama yaay. sama h mi ngi doon woote sànq ni affaire fu toll maman I maa ngi lay bëgg tamit xam nga di bëgg tamit képp ku ñuy déglu aussi di bëgg waa jàmm gën ak sama gaay yëpp sadab. atiwaat maa ngi leen gaa yi waa ñu tëj. <laughs> yee freestyle ah. dafa leer bàyyi. ok. gisuma ku ma gën a super si jamono mais bu sànnee sànneendoo xam ngeen duñ jamono tey ngeen jamono waaj gis baax jëru séntu poutine de reefaan primaire la bindee son yu correct gis nga écriture bi nu mu lycée professeur bu ko doon corrigé du dem ndax kémi du sens caga bu nekk ponté su ma neexee reew ma ne est-ce que am na ay noon non bokk lu ñu jeew <laughs> boo yorul da nga yaru ah dama dégg-dégg te dëng-dëng ay pañe sax laay dënk-dënk sa rapport du génn maa ko rënk-rënk di mbay xott taat ak i dénk ñu ne bakkan comme daal lu carax buy ko yëg <laughs> non bos des négri réglé seen kaa ni Adamo en réseau social la si game bi mënoo ma teggi booy teg brique lu ma observé lépp a mat nokk naa la filoo xam ngeen ne may Omar Pène si digg bi laa jaar ma ne Estrine def ñokket mel na ku naan aspirine ñu juutu ñëpp ma tat sërëm di nga ma dégg par force ma takk xërëm seen béegi béegi ngeen keppi keppi ma teg fi rap ngeen waaye di ma sekk sekk ngeen jéng jéng seen rabu soo mi di way focus. yee gars yi xamaas la woon xama seen émission high class ci biir Africationnel ñoo leen ko diggoon ñëwaat nañ tey xama chaque samedi ak émission bu ñu leen jox eh, xamaas bëgg nañ de. waaw papa. nice dund gaa